tàkk ba jib na ami internet yu 24 actu nuyu nañ leen fañ leen daan nuyoo di leen xaymaal rek li nga xamante ne nii moo di résultat wu bés bi tey ci alxames yi yamook fukki fan ak benn ci weerum juin 2020 bi ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci ay test yu ñu amal téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ñoo ci daal di ñëw positif maanaam amee jàngoro ji ci biir loolu téeméer ak ñaar yi nekk ay cas contact fukk yi ak juróom-ñaar nekk ay cas issus de la transmission communautaire gox yi nga xamante ni cas communautaire yi feeñ na fa moo di plateau am na ca ñaari cas Mariste am benn Golf Sud benn Waxinaan am benn Hann am benn Diamniadio benn Grand Yoff ñaar Parcelles Assainies benn Xaar Yàlla benn Fass Mbao benn Hann Mariste benn HLM Nimzat benn Kaolack benn Richard Toll benn Touba am ci benn cas fii ci réewum Sénégal am nañ lu toll si ñaar fukki cas grave ñoo xamante ne ni ña nga Sowetaas bi jàngoro ji duggee ci réewum Sénégal nag ak léegi xayma bi mu ngi toll si ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent moom la ñu am positif ci réew mi. ci biir loolu ñaari junni yi ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ñoo ci daal di wér juróom fukk juróom génn ci àddina li ñuy saytu nag ci lali hôpital ñu ngi toll si junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent ba tax rek ministre bi di gën di ñaax askan bi ñu gën a fonk loole nga xamante ni kër docteur ñu ngi koy digle ndax xeex bi gën a gaaw génn ci mim réew ba tey dañuy dese ne ci mbas mi lëmbee àddina wërngal këpp di Covid 19 ndax gis nañ ay émigré yoo xamante dañoo bloqué woon fii ci réewum Sénégal la ko waral rek mu di mbas mi ma tudd léegi ba daal di regroupé benn groupe tuddee ko diaspora ñoo lànk la wundu rek moo di gis nañ ne Air Sénégal dafa daal di annoncé ne dafay yokk prix billet d'avion yooyu le ba tax ki nga xamante ne nii moo di Baye Fall nekk porte parole groupe boobule daal di nay wax ne fi mu nekk nii ak situation bi Sénégal di dund jamono ji ak pandémie bi waruñoo yokk li nga xamante ni moo di billet d'avion yi bu ko waa Air Sénégal yokkee rek nekkul lenn lu dul ay njublang ak i njuuj njaaj rek moo ko daal di lal ba tax rek ñuy daal ñaan njiitum réewum Sénégal daal mu bañ leen abandonné benn yoona ndaxte nee nañ dañoo bàyyi seen i doom ak seeni i njaboot ca fële ca réew ma taf dañu leen a war a fekk ji waat ndaxte toog bi ñu toog fii ci Sénégal yàggoon na lool ba tax rek se ji ci alxames ji ña nga fële ca ministère des affaires étrangères pour bëgg rek ñu daal dégg ñaxtu bi nga xamante ne ñi ñu ngi koy ñaxtoo ndaxte nee na pour nga mosaana dem voyage Espagne wala Italie billet bi mu ngi la daan dikkee deux cent cinquante euros jamono ji nag ñu ngi koy jaayee mille euros pour France nag il faut nga am mille cinq cent euros te nee na loolu rek jaaduwul ndaxte jamono ji rek ak pandémie bi nekkul yoon benn yoon ñu yokk loolee nga xamante ni nii moo di billet yi ba tax rek ñuy ñaan njiitum réewum Sénégal mu def ab taxaw seetlu jëme ko ci yokkute ak billet yooyu le ñu daal di wax ci leneen loo xamante ne nii amoon na démb fële ca Parcelles Assainies ab point de presse boo xamante ne nii caat bu Y'en a na daal génne ay kàddu daal ñuy xamal ki nga xamante nii moo di docteur Samba Ndiaye daal dinañ koy libéré ginnaaw ba ñu libéré ki nga xamante ni moo di Seydina Bougazali ñu gis ne nag bi ñu vérifié boobule information jëm jugee ci ki nga xamante ne nii ah, moo di caat ah, Seck docteur Samba Ndiaye ba léegi mi ngi prison bu sebi Sébikotane buñ sukkandikoo rek ci juge huitième cabinet boobule moo xamle yooyu yile kàddu kon nag mën nañoo jàpp ne fi mu nekk nii li caat bu Y'en a marre wax démb ci point de presse boobule nekkul benn yoon lu am buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay boobule di euh, Sénégal 7 ñu daal di wax ci leneen soxol affaire Iba Thiam moom nga xamante ni moom moo faatu woon rek ci jëlum dorog mu bëri moo xamante ni amoon na fële ca Almadi ci benn soirée privée boo xamante ni doon nañ ko amal ci digg couvre-feu bi David Dieng alias Pablo moom moo nekkoon ki nga xamante ni moo leen jaayoon boobule drogue gis nañ ne jamono ji nag daal nañ koy teg loxo par les gendarmes de la section de recherche buñ sukkandikoo rek ci l'observateur moom Pablo ñu ngi ko teg loxo samedi 30 mai bii ñu génn buñ sukkandikoo waar rek ci li nga xamante ni moo di élément yi nga xam njëkk nañ ko am ci enquête boobu jëm ci ki nga xamante ni nii moo di Pablo moom gis nañ ne mi ngi bokkoon ci benn réseau international bu Guinée Bissau Nigéria ak Bénin ak li nga xamante ni moo di euh, Brésil ñoom nag day def li nga xamante ni moo di trafic de drogue dure jamono ji nag gis nañ ne moom ah, chaque trois mois rek day changer li nga xamante ni moo di appartement ngir bañ a bàyyi benn trace jëm ci li nga xamante ni mooy trafic drogue bi nga xamante ni def na ko waaye jamono ji nag teg nañ ko loxo dañuy bàyyi rek yoon daal def liggéeyam lépp loo xamante ni ruusandi waat na ci jëm ci xew-xew boobule daañ nañ ko toppal ba xam fan la ci di mujjee kii gëtëm ñu daal di koy jeexaleek député Mariama Mané bokk ci membre alliance pour la république di APR fële ca département bu Goudomp moom la ñu daal di gis rek mu daal di ñàkk bakkanam démb ci àllarba ji ginnaaw rek ak feebar bu yàgg boo xamante ni ñi daloon na ko ñu di ko jaale rek ay mbokkam di ñaan yàlla suuf oyof ci kawama lii rek moo fi ruusandi woon ci ay xibaar ami internet yi dig daje ba ëllëg ak jàmm.